jërëjëf dal leen jàmm ci suñu jotaay point corona suñu émission tey yemoog ñeenti fan ci weeru avril di bés bi nga xam ne nii waroon nañ cee màggal dayo Sénégal màggal nañu ko sax naam waaye dafa di ñuy seetaan ci biir kër yi jamono ji xëy na daan nañu tàmm leneen ci télévision bi muy président de la République jamono ji bu fekkoon ni défilé bi jeex na xëy na ñu ngi ci ni ñu koy jàngatee yàlla def nag tey ren ji loolu yëpp amul li ko waral xam ngeen ko moo indi suñu jotaay bi te ñu nekk ci boobaak léegi ëpp na weer ndax doomu jàngoro jii di coronavirus ñu mujj ko dippee Covid 19 di nom de code bi nga xam ne moom lañ ko jox mu dugg ci àdduna bi bu weeru novembre dugg fii Sénégal. le 2 mars ñu ngi tey ci le 4 avril weer ak ñaari fan wàññi bi chaque jour ñu ngi koy def ndax c'est très important ñu xam fu ñu ci jóge fu ñu ci tollu tey ak kilifa yi perspective yi ñu ci dégagé président de la république wax na démb ndax message traditionnel à la nation la lu jiitu 31 décembre chaque jour fu mu amee président day wax ak askan wi 4 fu mu tombee lu ko jiitu président day saafonteeg askan wi di adresse à la nation def na ko démb tënk ko ci dayo bu gàtt ndax wax ji mënula bari li fi xew lenn rek la du leneen président tënk na ko ne amuñu jotu leneen fi mu toll nii ndax daw suñu xelu bakkan ci xare bi ñu nekk loolu rek moo yitteel askan wi mu boole ci nag delloo njukkal ñi nga xam ne nii bu ñu tëddee ba nelaw tey yàlla ak ñoom a tax ci contexte bi ñu jiital ci waa kër docteur ndax nag ñun ñi jàq sax xëy na ci ñoom la ñuy mujjee waaye loolu mënula sotti bu fekkee ni amul ñoo xam ne nii ñooy taxaw di fàggu di sàmm dalu réew mi bu ñu nee dal nag lu bari day xel yi day dem ci sécurité waaye nag dadul lool rek ndax stratégie mu ngi ci yokk doole askan wi mu ngi ci yokk fit askan wi mu ngi ci moo tax suñu plateau tey vraiment am nañu ci mbégte du ñu fi waxtaanee tey luy grade luy sababu force armées ci ay xare xare boo ko déggee ma wax ko ci contexte bi mooy dem guerre ay armée Sénégal force de défense et de sécurité ñu ngi ci théâtre d'opération àdduna bi yëpp loolu bakkee nañu leen ko taxul ñuy wax tey donte gàcce ngaalaama feneen fi ñuy waxee mooy xëy na lu ñu bëri umpule te ñoom ñu am ci cër ci tolluwaay bi Sénégal tollu tey ci wàllu taxawu askan wi ci wàllu social ci wàllu taxawu ñi soxla walla taxawu ñi ñuy taxawu ndax waa kër docteur bu ñu xamee bu ñu amee sax dal am na ñu tax xëy na te loolu yëpp dinañ ci dugg si ci suñu waxtaan may rafetlu kàngam yi nga xam ne nii ñoom ñoo ñu wuyu si bu ma sañoon ni dama def sax tirage au sort ndax toog ak ay gradé yii di saña ne diw yaay njëkk a wax man tànn ma koy njëkk a wax tirage au sort moo ko defee ci sama xel damay commencé ci sama ndeyjoor ci cetu table ji commissaire Serigne Amadou Diop commissaire central bu Kaolack ñu lay dalal jàmm ci suñu plateau di nuyu nag waa Saloum yëpp nga xam ne ñoom nga fa bàyyi ñu woon tey ci bés bi gane si ñu ñu am mbégte lool nga teew ak ñun ci jotaay bi Serigne amatu Diop commissaire central bu Kaolack dalal jàmm. jërëjëf euh, monsieur Cissé maa ngi lay sant di la nuyu yow tamit di nuyu sama naataango yi ma toogal fii ñu doon ay euh, frères d'armes di nuyu tamit euh, waa groupe Futur Média di leen jaajëfal tamit si invitation bi comme ni nga ko waxee tamit di nuyu waa Saloum. jërëjëf ma sañoon ni yaa ngi fii ci fu directeur général police nationale waaye bu ma nee ci fu ministre de l'intérieur jeexal na ndax moo njabootee ñëpp. Mhm. feggu ci sa wàll bi ba léegi ci sama ndeyjoor colonel Amakodou Fall adjoint ressources humaines à l'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale nekkoon nit kàngam bu yilif directeur officier de gendarme école des officiers bu gendarmerie nationale colonel Amakodou Fall dalal jàmm Abdoulaye Cissé maa ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu invitation yi ma invité si plateau bi di nuyu di ziar sama naataango yu bokk ci plateau bi di nuyu sénégalais yi yëpp di beral euh, nuyo euh, jeunesse bi ak takk der bi tey xam ne dañuy màggal suñu accession à la suinté internationale te bés bu am solo la waaye circonstance si def na ne dinañ ko dinañ si dugg ngir gën a yaatal waxtaan bi wax lu tax ñun ñu réduire euh, fête bi assage sa à une proportion assez modeste. <laughs> ma wéy ba léegi ci sama càmmoñ na colonel Cheikh Diouf. corps la boo xam ne souvent du ñu leen associer sax ak force armées ndax xëy na ni ñu leen dippee sax mooy soldat de l'économie ay douanier lañ lieutenant colonel Cheikh Diouf dalal jàmm. maa ngi lay nuyu Abdoulaye Cissé di nuyu sama yeneen collègue force de défense et de sécurité di nuyu say spectateurs di nuyu également tout le peuple sénégalais di rafetlu invitation bu ma invité fii nii pour ñu mën a waxtaanee rôle force de défense et de sécurité dans la lutte contre les pandémies. jërëjëf lieutenant colonel Cheikh Diouf. moo wëlbatikoo ki nga xam ne xëy na sax ci jotaay bi ñu bëri moom la ñuy gën a associé ci li nga xam ne moo ñu fiy tax a waxtaanee tey ndax bu ñuy wax ci wàllu wér-gu-yaram service d'hygiène ku ne xam na ni xëy na xale yi juddu ci ñaar fukki at ak juróom yu yu mujj yi sax peut-être ñoo xamul waaye ñi xam dëgg xam nañu service di d'hygiène moo doon wattu setu mbedd mi surtout biir kër yi boutique sax amoo woon droit jaay loo xamante ni nii sellul dana ñëw nangu ko yàq ko teg tegal la ci alamaan service d'hygiène boobu mu ngi fi ba léegi médecin colonel Moussa Dieng Sarr maa ngi lay dalal jàmm bismillah salaamaaleykum euh, Abdoulaye maa ngi lay fay tamit euh, di nuyu sama natango yi ñu bokkal plateau bi bu police gendarmerie at euh, douane ci tamit di nuyu waa groupe TFM yëpp ak euh, képp koo xam ni yaa ngi biir Sénégal wala bitim réew di ñu du ñu seetaan à travers euh, vraiment euh, le signal de la télévision Futur Média di souhaiter à tout le monde une très bonne fête d'indépendance. jërëjëf sababu jotaay bi bu weesoo ma wax ni dañu doon màggal bés bi nga xam ne Sénégal moom la moom boppam ci tey 4 avril tombeek juróom benn fukki at dafa di nag dafa am loo xam ne ñu bëri jàpp nañ ni tendance la mais du tànd ndax weeru novembre la kilifa yi Sénégal feggoo ci ak armée bi ñi nga xam ne ñooy toppatoo défilé bi national bu 4 avril bi jëloon thème ñu ne dañoo bëgg bàkkee bés bi rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies ñu ne waaw ñoom xanaa dañ ko gisaane woon ndax pandémie bi nga xam ne ci lañu ñu toll tey wax dëgg fa yàlla weeru novembre jogagul woon Chine sax ba mu fa jógee am na ñu doon seen xel den teey ci ne yëf yi am na dayo bi nga xam ni moom lañ moom lañu ko bëggoon a jox kon gëstu ngi ci xalaata ngi ci thématique bi nga xam ne sax moom la ñuy bàkkee bésu fête indépendance nit ñi war a xam ni kon du jóg rek ci suñu coobare rek ne tey lii la ñuy def donc gàccee ngaalaama ñi nga xam ne ñoo gëstu ba tombale ko mu doon nag njariñ lu rëy xëy na bëggoon nañ cee wone bu défilé bi mënoon a nekk tey li nga xam ne mooy rôle force de défense de sécurité waaye nag wane bi gën a fës kay mooy bi nga xam ne mooy ci théâtre d'opération bi ndax finalement contexte may na leen ñu wane ko ma njëkkee ci colonel euh, du Fall ndax gendarmerie tey ñoom ñoo def levée des couleur bi ndax force yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci palais de la république garde rouge yi ci yéen la ñu bokk lan bu weesoo dayo bi nga xam ne président la moom la jox bés bi tey tënku ko ci levée des couleurs ñu ne réew mi dafa tollu diggante parce que bëgguñu dajaloo bëgguñu xew bu rëy bu dee ci kër yi sax tere nañu xew bu rëy ndax dafa am loo xam ne nii moo fi nekk te bëggul dajaloo ñun ñi suñu plateau bi wax dëgg fa yàlla tey yànj na waaye nag distance sociale baa ngi fii may fàttali balaa ma lay jox kàddu gi colonel ñu xam ni Sénégal ñu ngi toll ci deux cent dix-neuf cas ci bëccëgu tey bi jàngoro ji mu ngi fi dugg le 2 mars weer a ngi nii. ci ñaari téeméeri cas ak fukk ak juróom-ñeent la ñu toll bari na bariwul bariwul ci boo ko méngaleeg réew yoo xam ne dañu koy wax fii toujours état mel ni ki New York jàngoro jàng fa dugg le premier mars benn fan la ñu juutoo ñu ngi ci presque 2000 morts comparaison bi nag xëy na warul parce que dayoo yu bokkul mais nag dina tax aussi ñu xam ni fii am na lu fi nekk yàlla ñuy suturaal ñaari nit ñoo ci ñàkkagum seen bakkan ki ci mujjee démb la. ki ci jiitu Pape Diouf lañu koy ñaanalaat bu baax fa mu tëdd woyof suuf woyof ci kawam exemple rek bu ñu ko jëlee États-Unis tey deux cent soixante-dix-huit mille cas ñaari téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ci ay ka ñi ñàkk seen bakkan ëpp na juróom-ñaari junni nit itali waxatuñu ko ndax Europe moo fa ëpp lu fa nit ñàkk bakkanam quatorze mille ñu ngi dàqee quinze mille quatorze mille fukki junni nit ak ñeent France quatre-vingt-trois mille cas lu toll ci juróom benn junniy nit ñàkk nañ seen bakkan ci jàngoro ji Sénégal bu tollee ci ñaar ñàkk bakkan nañ ko sant yàlla waaye nag dañoo ne wàññi boo gis ci benn lay commencé colonel Amakodou Fall dayo bi ñu jox bés bi lan la jotee ak li nga xam ne nii moo xew tey ak lu ciy rôlu gendarmerie nationale ci taxawu ci pandémie waaw jërëjëf Abdoulaye euh, liggéeyu gendarmerie euh, commencé wul tey di bokk dugal loxoom ci pandémie euh, gendarme yi jour bu nekk dañuy exercer ay missions de police administrative police judiciaire et police militaire si police administrative boobu am na lu ñuy wax ordre maintien de l'ordre public ordre public nag dafa am ñetti pàcc. dafa am sécurité publique am tranquillité publique am aussi salubrité publique te soo nee salubrité publique yaa ngi xalaat hygiène yaa ngi xalaat prévention des maladie donc ñun saa su nekk dañuy dem ci gox-goxaat yi di saytu euh, taxawaayu askan bi di xool ndax am na ay épidémie walla am na ay épisodie loolu ngir ñu alerter euh, les pouvoirs publics pour mun a jël ay matuwaay léegi ñun nag am nañ benn taxawaay su fekkee ne dafa amay ay événement yuy xew comme lu ñuy wax pandémie pandémie bi dafa bokk ci benn maladie boo xam ne euh, il faut ñëpp taxaw si te bu ci ñëpp mënee taxaw gendarmerie taxawaay mooy d'abord euh, faire ay ndigal dogal yu kilifa yi tëral dogal yooyu mooy bu si gën a am solo mooy couvre-feu bi fexe ba de vingt heures à six heures du matin kenn du génn circulation amul si tali yi ñëpp ñi ngi toog seen kër beneen bi mooy aussi am na ay euh, zone de mise en quarantaine yu yu ñu sant foofu aussi ñu fexe ba ñu fa def ñu toog fa beneen bi aussi euh, mooy lépp luy dooleel euh, kilifa yi yoo xam ne ñoom am nañ sañ-sañ di euh, digal di di dogal ñooñu aussi dina leen di appuyer yeneen force de sécurité aussi surtout mooy euh, kilifa yi yënga si wàllu kër doctor ñun aussi dina leen jàppale donc si si si tënk daal am na mission yu bëri bëri yoo xam ne gendarmerie da koy dox du du du mission classique rek ay police judiciaire euh, police militaire police administrative mais gannaaw dafa am benn euh, euh, euh, plan d'urgence bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu décrété foofu gendarmerie dafay jouer sa partition te partition bi nag mooy ak en relation ak toutes les autres forces de sécurité ñu mën a taxaw ba xeex pandémie bi damay fàttali wax ne ñun am nañ benn service de santé de la gendarmerie boobu di yëngatu si si wàllu donc Kër Docteur moom aussi dina liggéey liggéey bu mucc ay pour mën a def des travaux de sensibilisation pour que ñun feebar bi du ñu mën a dal. donc ci wàllu feebar bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee dafa am loo xam ne c'est vrai que sénégalais yu bëri daf mel ni dañ ko door a découvrir ci ne gendarmerie am na ay centre médico sociale yoo xam ne dispensaire wala centre de santé yoo xam ne nii lañu fay faj ci civil sax moo ëpp la ñu fay faj ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy sol ay ci misaal am na exemple boo xam ne waaye jooju nga xam ne Euh, seen centre de santé bu Samba Diéry Diallo la ko dépisté wax ko ni am nga doomu jam mu saalit dawee xelu ba kanam Samba Diéry Diallo ba Pikine ñu gis waa kër docteur gendarmerie gunge nañu leen aar leen ba ñu mën koo dem jëli ca kër ga ba xëy na yàlla def na ci jàmm na mu yaakaaroon mu lawee ko ndax bu duggoon jaxasoo nag nit ñi mën na ko continuer service de santé boobu bi nga xam ne gendarmerie moo ko moom benn la fi wala am na ci diwaan yi ak est-ce que social bi euh, civil bi am nañu sañ-sañ jóg dem ne man su may wattu sama wér gu tey ci caserne bi lay dem wala boo amee ci région yi foofu laay dem. waaw service de santé boobu dafa ëmb ay structures yu bëri la la structure centrale moo nekk caserne Samba Diéry Diallo mooy saytu wér-gu-yaramu gendarme ak famille am mais da nga kenn dara ëmpul ne ñun dans le cadre du de l' l'opérationnalisation du concept armée nation ñun dañuy euh, jël ay population yu nekk ci weti caserne yi te leen di accueillir dans le cadre des consultations médicales donc euh, loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la day tax euh, gendarmerie gën a rataxal digganteem ak population su weesoo caserne Samba Diéry Diallo am nañ ay centre euh, secondaire de santé am nañ bu nekk euh, mbaaw am nañ bu nekk Front de Terre am nañ bu nekk si yeneen régions yi donc lu taxawaay boobu euh, hôpital bu Médina di taxaw vis-à-vis des populations même taxawaay bi la le centre secondaire yooyu di taxaw vis-à-vis des autres populations donc du ñu yem rek si ñëw accueillir les gendarmes ak seen famille di leen faj mais également di admettre les populations riveraines dans le cadre du concept armée nation et donc y a concept boo xam ne bu am solo la bu ñuy tuddee action civilo militaire donc si loolu moo tax hôpital bi ak service de santé de la gendarmerie bi mën a donc euh, accueillir euh, population yi di saytu seen wérgu yaram. colonel Amakodou Fall bu état major au commandement de la gendarmerie nationale mool batiku ci. commissaire central bu Kaolack Serigne Amadou Diop commissaire c'est vrai que takk der moom bu ñu ko waxee dañu koy associer ak police très souvent ñu koy associer très souvent aussi ak maintien de l'ordre waaye xëy na jamono joo xamante ni nii ñiy wattu suñu kaaraange dañuy soxla sax ñu comprendre ñu li ñu bëgg defe naa ne taxawaay bi am na solo ci wàll boobu te tey dama dégg ministre de bi muy wax ba ne couvre-feu bi prolongé nañu ko mu dressé ci bilan ne satisfaction la ci am ci sénégalais topp nañu ko c'est vrai que dafa mel ni couvre-feu lu beesoon la ci sénégalais yu bari ñi nga xam ne seen at soriwul couvre-feu gëj na fi am ba xëy na peut-être ci début bi amoon na ay tolof-tolof peut-être nit ñi assimilé wuñu bu baax luy couvre-feu lan mooy seen wàll ci taxawaay bi ci xeex bi nga xam ne moom la Sénégal jóge président de la ci boppam ne ci guerre la ñu nekk lu ciy taxawaayu police jërëjëf euh, Abdoulaye euh, wax nga ko léegi police dañu jege population bi donc euh, jàngoro bu mel ni su amee defe naa ni police euh, day doon genre primo intervenant maanaam si kanam lay nekk taxawaayam nag euh, du doon lu jafe maanaam aar lay doon population bi comme ni nga koy defee mission régalienne maintien de l'ordre sécurité publique sama naataango bi wax na ko léegi soo nee ordre public rek dafa am lu bëri lu nekk si biir comme tranquillité publique mi ngi si euh, la santé publique aussi mi ngi si suñ jëlee pàcc boobu euh, police si ay mission mu tënku si ndigal yi muy jot si kilifa yi comme par exemple euh, aar maanaam doomu aadama yi seen kaaraange boole si ñu ñëw tey ñu am pandémie bu mel nii nga xam ne dafa lëmbee àdduna bi nit ñi di jóge fu nekk soo demee si frontières yi police ñaa ko fa taxaw parce que ñu ngi am suñu premier cas je crois début début mars te dafa doon un cas importé donc mission police au niveau des frontières dafa doon mission boo xam ne bu am solo parce que avant que ces malades di àgg sax si woy docteurs yi ñay faj si policiers lay njëkk daal soo xoolee foofu suñu respecté yenn mesures d'hygiène yi ak yenn contrôle yi maanaam flux migratoire boobu dina am lu bëri loo xam ne maanaam dina dinañ segg maanaam ñuy dugg jéem a tànn ñi nga xam ni feebar nañu wala xëy na présenté nañ yenn signes yi te waxoon nga ko léegi thème bi ñu jël nii je crois que les forces de défense et de sécurité dañ ko tànn depuis mois de novembre au mois de décembre passé police dafa lëkkaloog ministère de la santé def benn formation boo xam ni dafa jëm si maanaam la gestion des frontières lënkaloo ko ak santé maanaam soo xoolee cadre yi nekk au niveau de la direction de la police de l'air et des frontières pendant une semaine dañu toog ak docteurs yi doon liggéey si loolu genre loolu dafa doon sóoraale parce que kuy naan guerre da ngay prévenir dafa doon sóoraale maanaam genre maladie si amee genre pandémie te bu leen fàttee ay at si gannaaw amoon nañ ci benn jàngoro bu doon euh, euh, Ebola. am na taxawaay bu am solo bu si takk der yi taxawoon bu si police euh, taxawoon au niveau des frontières pour au moins protéger suñu suñu suñu suñu dëkk loolu dafa am solo soo génnee wàllu frontière nga dugg si si biir dëkk bi tey depuis euh, bientôt dix jours le 23 mars pour être précis kilifa réew mi dafa décréter état d'urgence lu tax mu décréter ko pour gën a aar nit ñi parce que feebar bi li si docteur yi jàngale mooy pour mun ko téye pour mun ko xeex il faut ñu éviter rassemblement yi pour éviter rassemblement yooyu nag il faut ñu jël des mesures restrictives des libertés moo tax ñu joxe ay ndigal yoo xam ne état d'urgence bi dañuy tas lépp loo xam ne day doon rassemblement wala ñu wàññi ko ba pare décréter un couvre-feu loolu nag pour ñu appliquer ko il faut que takk der yi wàcc sur le terrain pour au moins sensibiliser les populations parce que travail de sensibilisation boobu dafa am solo balaa ngay ñëw dina kii parce que ñu bëri xamuñu mais foog nga wàcc sur le terrain waxtaan ak nit ñi da ngay xool ku amoon habitude génn dem julli ju jumaa nga ñëw ne ko tey doo fi julli soo si àndul ak travail de sensibilisation ak de pédagogie mun na demee neneen maanaam toog waxtaan ak ñoom ne leen de lii de du tax ñu demee nii parce que pour aar seen wér yaram la. dina xaw a jaaxal ñu bëri nag su police ñooy taxaw di def sensibilisation sur la santé mais suñu rôle rek lay doon maanaam lépp pour aar maanaam askan bi te day fekk au préalable aussi ces force de sécurité comme la police gaa yi leen tàggat tàggat leen ci feebar bi nga xam ni au moins suñu wàccee sur euh, les population mun leen jox les bonnes informations nga xam ne au moins ñooñu soo leen di tere dara dinañ ko bàyyi avec conscience dinañ xam ne ah ñii de lii ñuy tere suñu wér-gu-yaram mi ngi si. donc daal taxawaay boobu nañ jàpp ni force de défence et de sécurité yi seen mission la bokkoon xëy na tey daf ko gën a fësal ñu xam ni ñii en plus de la répression maanaam lépp loo xam ne dafa jëm ci criminalité police am na une mission de prévention mbirum jàngoro yi tout saa yi demee noonu dañ ciy prévenir les les gens maanaam lépp loo xam ne salubrité publique dañ ciy prévenir les citoyens lépp loo xam ne dañ koy tere te baaxul ci askan bi baaxul ci ci ci dëkkandoo bi doolu yëpp aussi police daf ciy taxaw di si accompagner population yi di si accompagner tamit ñi nga xam ne ñooy woy docteurs yi parce que pour nga faj il faut nga ànd ak une certaine sérénité donc aussi sérénité boobu li koy waral mooy il faut au moins woy tax réeri taxaw gunge leen si ñu mun a faj convenablement ñu ngi dégg ñu naan euh, feebar bi de temps en temps dafa baax ñuy jël ñenn yi nga xam ni dañu soupçonné ni am nañu jàngoro bi il faut ñu yóbbu leen si benn zone boo xam ni bàyyi leen fa pendant quatorze jours mooy période d' incubation bi pour xool ndax jàngoro bi mi ngi si ñoo wala nekk si ñoo soo leen fa yóbbu il faut nga surveiller leen maanaam il faut nga sécuriser seen kër yi ñu bàyyi tam il faut nga ko donc loolu day indi benn sérénité boo xam ne ña nga fa yóbbu dinañ ànd ak sérénité ña leen faj aussi dinañ ànd ak sérénité loolu nag mission wu way takk der yi la est-ce que mujj naa yomb fi ma ci bëgg a ñëw mooy est-ce que police sax du dem ba ci situation bi jàpp ni ah gars yi assimilé nañ couvre-feu sénégalais yi nangu nañ ko léegi presque gisatuñ kenn ci biti ñu xaw a naagu est-ce que naagu mën na ci am am déet relâchement wala naagu ci wattu ba léegi couvre-feu bi pour jàpp ni rek assimilé nañ ko donc euh, voilà. du ma ni du ma ni du ma ni déet parce que ñu ñëpp ay sénégalais lañ wax nga ko sànq couvre def na bi mu mujjee am état d'urgence ba mu mujjee am c'était en 1988 ñu bëri fekke ko woon. Hmm. donc euh, début bi xawoon na métti tuuti mais li gën a yombal liggéey bi mooy sensibilisation bi c'est-à-dire que nit suñ xamee ni lii leen di tere seen njëriñ mi ngi si rek mm-hmm. je crois que dañ koy nangu mais naagu xëy na mun na xaw a am tuuti si côté population bi mais ñi nga xam ne dañ leen fa teg pour ñu saytu loolu tant que ñi ngi taxaw rek du ñu seetaan kuy naagu maanaam avec une certaine fermeté ñu ngi taxaw si si si dëkk bi pour au moins ni ngi respecter couvre-feu bi donc defe naa ni naagu bi moom su waroon am daal lu bëri tant que takk der yaa ngi taxaw te gëm naa ni du am incha allah. commissaire central Serigne Amadou Diop commissaire central bu Kaolack ma njëkkee ci euh, wàllu wi ci pegg ba fële muy médecin colonel Moussa Dieng Sarr service d'hygiène wax naa ko ci plateau bi xëy na ci dégg-dégg bu gàtt xëy na service d'hygiène la ñu fiy gën a déndale ak wér-gu-yaram ndax xamee woon nañu ko ko bu baax xëy na jamono dox na nag ba mu xaw a wàññeeku ci ni ñu nekkee woon ci wàllu set sax laay wax ndax set mooy wér-gu-yaram te dañoo gis misaal bu gàtt rek ci cas yi fi njëkk dugg am na deuxième cas bi la foog naa wala suñu mbokku Sénégal bi nga xam ne nii moom la njëkk a dal te mu jóge woon tugal ñu ne dafa jaaroon ci centre de santé bu ñuy wax euh, Nabil Choucair te bi mu fa jógee kilifa yi yor comité bi wax nañu ni désinfecté nañu centre de santé ba poudre nañu ko désinfecté nañu ko te loolu gisuñu fu muy mën a amee lu dul feggoo ci ak waa service d'hygiène est-ce que seen rôle mu ngi ci wàll boobu fa yem ak taxawaay bi au quotidien dinañ ñëw sax ci njeexital bi parce que finalement jàngoro ji ñaar moo ci nekk wér wala mardital mu yóbbu bakkan bu yóbbu bakkan aussi gis nañu taxawaay bi nga xam ne moom moo am ci suñu mbokk moom nga xam ne dañ ko suturaal te kii yi wax ni kat ah waru mën a demee ni nga xam ne ni noonu la Sénégal tàmm di taxaw nit koo xam ne nii moo fi jóge am na taxawaay boo xam ne ni moom lañ ci namm ci jàngoro ji te service di d'hygiène dafay nekk au début et la fin ci processus bi bismillah médecin colonel Moussa Dieng Sarr. voilà merci Abdoulaye donc euh, question bu ma posé nekk na question bu am solo juste ma def une petite rectification rek deuxième cas boobu nga waxoon ni moom la ñu euh, euh, diagnostiqué fii Sénégal du woon Nabil Choucair fële la woon. Euh, roi Baudouin c'était le roi Baudouin en fait pour rappel rek que ni service d'hygiène dafa nekk benn service boo xam ni. ñu ngi ko bootal ministère de la santé et de l'action sociale nga xam ni monsieur Abdoulaye Diouf Sarr moom moo ko jiite. donc euh, service bi nag mën naa wax ni si si si si si si bànqaas yu am doole yu ministère de la santé yi nga xam ne ñoom la ñu jagle prévention daf si nekk service bu ñu si ràññee. lu moom rek man moo fay def prévention am na yeneen service yi def prévention mm. mais euh, moom euh, rôle am foofu tamit fës na fa. te boo xoolee service euh, national euh, de l'hygiène dans le cadre de ses mission dina agir dans la prévention prévention nag mooy lépp nga xam ni mooy jëm si fagaru at faj euh, mais aussi dina intervenir maanaam dina liggéey tamit si riposte xam nga fagaru pour bañ a am jàngoro mm-hmm. waaw loolu moom vraiment mooy sunu activité majeure yi ñuy def de tous les jours mais dina am situation yoo xam ni bu fekkee ni menace sanitaire parfois am na lu dem lu dem ni ay ay ay ay ay ay ay yenn maladies yi nga xam ni comme naa sene seen feeñ war a law nekk épidémie même sax bu fekkee ñëw na bu nekk épidémie service d'hygiène tamit dafay dugg foofu te foofu aussi dafa am liggéey bu am doole bu mu fay def soo xoolee xëy na actuellement euh, coronavirus bi moom moo nekk euh, vraiment dans l'actualité mondiale même par rapport euh, à la santé du monde mais dans le passé amoon na fi yeneen xeetu menace yu fi am sur le plan sanitaire fii au niveau du pays choléra feebaru set sax voilà hmm. choléra voilà hmm. choléra xëy na bon la jeune génération ñu bëri xamee woon xamuñu ko noonu mais am na fi ay temps yoo xam ni sonaloon nañu demoon nañ nag ba gagné ko mais après feeñaatoon na vers les années cinq presque ba 2010 chaque année choléra feeñaatoon na fii si Sénégal même fii dans la région de Dakar mais yooyu yëpp service d'hygiène taxaw na fa taxawaay bi ñu ko doon xaaree pour que ànd ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex pour que feebar boobu jóge fi avant boobu tamit am na bon mun naa wax la maladie du verde de Guinée que ñu bëri dégg nañ ko noonu. Mhm. foogoon nañ ni Guinée la mais amoon na fii biir Sénégal. Mhm. dans les régions sud ay euh, région de ancienne région de Saint-Louis bi jàpp mm-hmm. bon Matam zone de maatam la région de Kédougou Tambacounda tout ça feebar bi taxawoon na fa mais il faut dire que ni vraiment le service national de l'hygiène foofu tamit avec le ministère de l'hydraulique vraiment xeex nañu loolu ba nga xam ni feebar bi jóge ni biir Sénégal avec les districts sanitaires bien sûr année yi tamit ñu passé dégg nañ fi ay dengue ak yu demee noonu yooyu yëpp dafa nekk ay xeet feebar yoo xam ni à chaque fois le service d'hygiène est vraiment parmi les premières forces en ligne pour ñu xeex ko pour mu mu yam fii bon aujourd'hui nag boo xoolee actuellement euh, pandémie bi nga xam ni moom mooy Covid 19 bi nekk na feebar boo xam ni c'est un problème de santé publique c'est pas un problème médical le problème médical kooku ñuy faj feebar yi médecins yi infirmiers yi. Mm. ñoom ñoo ko mën a faj keneen mënu ko faj mais ça c'est un problème de santé il y la nuance entre un problème médical problème de santé donc problème de santé nag képp koo xam ni yaa ngi ci biir réew bi ak fu nga mënti yëngatu war na mën a am contribution boo si def pour ñu combattre ko parce que dafa nekk loo xam ne dafa jéggi ministère de la santé seul pour mu régler ko donc aujourd'hui plateau bi on a vu que c'est c'est des représentants des forces de défense et de sécurité pour certains ñoo fi toog di si wax mais am na d'autres structures yoo xam ni tamit dañ si am wàll boo xam dañ ko si war a jouer ba mu mat sëkk pour que vraiment résultat yi nga xam ni espérer nañ ko si mi nga xam ni moom mooy ñu génne que lu mu gën a gaaw si biir dëkk bi ñu mën si jot te au-delà aussi contribuer pour que aussi mu génn àddina bi parce que bon ñu xeex ko biir Sénégal mu dañ fi alors que mi ngi continuer di law bitim réew les conséquence ñun sénégalais yi dañ koy yëg toujours et on ne pas à l'abri que mu ñëwaat fii on a vu que par exemple Chine feebar bi fu mu fa feeñee mat euh, stigmatisé nañ leen def lañ leen lu nekk mais ñoom xeex nañ ko ba mu jële ba jële ko fa si information yu ñu jot mais actuellement cas yi ñuy ñoom yi ñuy wax ñu ngi feeñaat foofu pour ñoom c'est des yoo xam ni dafa jógewaat bitim réew di dugaat foofu seen biir dëkk moo tax dafa nekk euh, combat boo xam nii ñun ñëpp ñoo ko war a xeex àddina bi nag ba mu war péng ba mu war a euh, képp ñoo ko war a xeex mu génn si àddina bi ma xam ni dinañu delluwaat si ni ñu demoon service di d'hygiène mhm. service d'hygiène pour rappeler rek xeex euh, mission yu yu ñu yore en matière de de de de de prévention bari na si ay pàcc yoo xam ne xëy na dinañu euh, si gën a xuus ou bien. ma waaw wax dëgg. waxante mhm. rek ah, mhm. jotaay bi loolu moo ko tax a euh, jóg. Mm-hmm. nit ñu doon gisee service di yéen ci mbedd yi. Mm-hmm. bay lijjanti ci yenn ville yi tuur ndox ci mbedd mi. Mm-hmm. boutique yi sax jaay loo xam ne nii sellul. xëy na est-ce que du naagu bi tamit comme nu ma doon waxee sànq. ci feebar mel ni choléra bi mu fi amee. c'est vrai service taxaw na taxaw boo xam ne xëy na dem ba loolu amatul. est-ce que du loolu moo wàññi taxawaay bi ci ci vraiment dans le quotidien de Sénégalais. en fait bon loolu mën nañ ko nangu si li ngeen si si si constat boobu moom ci seetlu bi am na seetlu bi am na mais boo xoolee ba si biir mission yi nga xam ni service d'hygiène parce que service d'hygiène il faut dire que ni bon c'est en 1981 si lañ ko réformé parce que dafa nekk service boo xam ni c'est depuis l'époque mm. le 5 5 5 5 5 5 de prophylaxie de Dakar c'était l'époque coloniale nga xam ni benn médecin des troupes coloniales moom moo ko jiite woon mais di travailler avec les services de santé yoo xam ne ñoom ñoo daan xeex yëpp nga xam ne ñoo nekkoon fii comme les grandes endémies ñoo daan ñàkk nit ñi ñoo daan xeex feebaru peste yi et cetera et cetera mais boo xoolee loolu continué na ba 1981 si la ñu réformé waat corps bi jox ko benn statut paramilitaire donc boobu nag ñu am benn loi boo xam ni si la ñu définiraat redéfiniraat ces différentes mission yi ngay wax noonu si la bokk dafa am loo xam ni moom la ñu basé wu moom mooy maanaam sunu sunu sunu sunu sunu outil boo xam ni moom moom si la ñuy sukkandiku pour mën a def liggéey bi te loolu moom mooy code de l'hygiène bi nga xam ni penc ndaw réew mi foofu la ko député yi xaatime ni lii service d'hygiène lii lañ ko dénk léegi boo xoolee nag si mission yooyu daf si am pàcc boo xam ni moom moom daf moo wax pour ñuy dem di constater di vérifier est-ce que li code bi tëral est-ce que nit ñi ñu ngi koy jëfe si biir kër yi si mbedd mi si boutique yi si restaurant yi hôtel yi yooyu yëpp dañ ko si tënk. sañ-sañ bi am ngeen ko ba léegi. ba léegi xool li nit di jaay sell na am sell bu mun ñu indil kooku mooy sunu liggéey tous les jours sur le terrain ñu ngi koy def xëy na li ñuy nangu mooy ce constat effectivement ñun bu ñu gënee nekk ndaw daan nañu gis que ni euh, vraiment service jeune su daan jub si si koñ bi. Mhm. ñëpp a daan daw seen waa kër avertir waa service jeune ñu ngi ñëw et cetera et cetera ñu rangé waat defaraat mhm. yu nga xam ni xëy na jagul ak yu demee noonu. mais boobu boo xoolee service bi dañ doon jógee ci indépendance yi service bi nag amoon na doole surtout en moyens humains parce que boo xoolee xëy na comparaison du toujours raison euh, euh, après les indépendances boo jëlee ratio bi benn agent d'hygiène moo doon boo koy reporté pour deux 2000 habitants mmh. surtout au niveau de la région de Dakar nga xam ni moo doon région de la presqu'île du Cap-Vert mais aujourd'hui quand même ratio boobu soo ko xoolee bu ñu ko atteint bu ñu ko nattee mu ngi tourné ci benn agent autour de 30 32 000 habitants donc xam nga loolu presque c'est le nombre divisé par presque quinze mm-hmm. Mm-hmm. donc nag loolu effectivement présence bu nga xam ne daan nañ ko am nit ñi nit ñi daan mën a gisee dootu ko mën a nekk. lan la dañoo formé waatul yeneen agent wala loolu jamono dox. waaw waaw loolu aussi vraiment nekk na si loo xam ni cause bi la. parce que mm-hmm. aussi période service bi il faut le dire toog na quand une période de vingt deux ans aussi sans recruter. donc loolu aussi nekk na loo xam ne aussi moo gën a affaiblir par rapport aux aux par exemple de de de 1988 jusqu'à 2010 période boobu yëpp dafa nekk période boo xam ni service bi quand même recruté wul loolu nag moom moo ñu dab loolu moom moo ñu dab moo tax bon mais malgré tout ça malgré tout ça les éléments qui sont sur le terrain mais ñi ngi continue di def mission yi comme nu ñu leen ko euh, kii euh, euh, code bi ak statut bi. diglee mm-hmm. mais nag xëy na fës bu mu waroon fës par rapport au nombre. du leen gisee noonu parce que bu fekkee ni par exemple un secteur boo xam ni day na euh, par à la limite euh, euh peut-être. Euh, mais benn agence hmm? pour Médina ëpp na ci moom mun nekk. voilà dugg foofu wala voilà c'est ça ce qui fait que c'est ça qui fait que on n'est ah. pas tellement visible sur le terrain. mais hmm. jusqu'à présent les agents suba ngoon ils sont sur le terrain pour pour pour faire le travail. jàngat bi mooy. Hmm. li ñu nekk ni situation wu jàngoro ji. wone na ni lépp am na njëriñ. ci biir réew mi te lépp dañ ko war a jox dayo bi nga xam ne nii moom la war a yellool ndax bis bu nga koy soxla ngay xam ni ndeke am na fi njariñ ndekke war nañ koo gën a dooleel loolu dama koy wax pour service d'hygiène mais ça peut être valable aussi pour gendarmerie ñu ne ah xaw nañu manqué oto ñoom ci situation bii kat la ko gën a soxla donte kilifa yi ñu ngi def ay effort ci wàllu équipement wu force de défense et de sécurité mais nga tollu diggante ngay gën a rendre compte su ma yëgoon su ma yëgoon nag rëccu la loolu la ñu war a moytu ma ñëw ci lieutenant colonel Cheikh Diouf douane service euh, bureau ci relation sociale culturelle et sportive maa ngi koy tooñ sànq naa ko xanaa moom moo wàccee AS douane sax deuxième division waaye loolu xam naa dinañ ci ñëw ci beneen jotaay Cheikh Diouf euh, li nga xam ne nii moom la ñu jàppale douane juste ci affaire bi ñu ngi naan waa ñoom ñooy surveiller frontière ñoom xam nga am na poste frontière yu bëri. nit ñi dañuy jàpp ni douanier fa nekk parce que produit yi ñuy dugal muy jóge bitim réew lañ koy gën a méngale mais poste frontière yi am na alkaati am na gendarme am na leneen ak leneen mais ci xeex bi nii douane lan la ñuy wattulee déjà frontières yi benn ndax xëy na marchandise mais circulation des des personnes et des bien moom la ñuy wax ñu gis nii ni ñaa ngi yaar ci frontière walla sax foo xam ne du point de passage ay point de passage clandestin di dugg ci kii di indi lor bi ñu yaakaar ni aussi bu dul yéen du ñii xëy na du sotti donc douane am na taxawaay ci wàll boobu dina ñëw léegi ci wàllu économie ndax soldat de l'économie lañ leen di bàkkee mais nan ngeen di taxawoo déjà ci wàllu sécuriser frontières yi ci li ci seen wàll yéen. Euh, merci merci Cissé euh, xeex bii ni douane def ci am wàll wax nga ko ñu ngi ci frontières yi. am na ay post frontière yu bëri au-delà du contrôle des marchandises des personnes et des biens dañu am aussi une mission de sécurisation une mission sécuritaire mm-hmm. euh, boo xoolee douane euh, mu ngi partout sur le territoire national euh, il est dans les postes les plus reculés aussi donc euh, pandémie bu mel ni su amee ñun dañ ci am taxawaay bu particulier parce que il faut dire que au-delà ci mission yi gars yi xamee mooy mission de collecte des recettes ay mission économique comme yi nga wax li nga wax léegi peut-être que dinañ ci ñëwaat euh, dañoo am également aussi beneen mission bu ñuy wax concours aux autres administrations mission boobu moo ñu permettre tey ñu mën a collaborer avec waa ministère de la santé ci xeexu jàngaro bii nii collaboration boobu dafa nekk sur plusieurs volets wax nga ko léegi le volet de la surveillance des frontières parce Euh, c'est vrai que dañuy focaliser wu ci feebar bi mais dafa am ñoo xam ne dañuy profiter ci situation yu mel nii aussi pour bëgg dugal ci territoire sénégalais ay loo xam ne normalement waru fii woon dugg foofu douane dafa gën a taxaw donc daan nañ ko def c'était dans mission missions c'est dans nos missions pérennes donc euh, mais dañ ko gën a accentuer présentement pour que tey bu gars yi concentré wu ci affaire jàngaro bi Euh, du kenn du ci profiter pour introduire dans le territoire ay loo xam ne waru fi woon dugg moo tax les unités de surveillance dañ leen a gën a renforcer gën leen a alerter euh, gën leen a ñaax également ci taxawaay bu ñu war a am par rapport ak pandémie bii nii hmm. euh, donc loolu c'est c'est le volet organisation hmm. mais il faut dire que également bu affaire bi commencé balaa même sax ñuy wax premier cas fii au Sénégal parce que premier cas bi def naa le 2 mars la feeñ fii Sénégal. mais ñun déjà dès février directeur général des douanes dafa jël benni note pour invité agent yi ñaax leen ne leen ah am na benn jàngaru boo xam ne mu ngi ci adduna bi. 2 février mois à l'avance déjà. Oh, le 28 février le 28 février d'accord. mu ne dafa am jàngaru boo xam ne mu ngi ci adduna bi ñaanunu mu egg si Sénégal mais mën na am mu egg si fii. Mm-hmm. donc balaa muy egg si voilà ni ngi ni ngeen war a taxawee. ci xeex bi su fekkee egsi na wala taxawul nii de telle sorte que du egsi dafa jël not pour ne agent yi autorité sanitaire yi voilà euh, conseil yi ñuy joxe digle yi ñuy joxe donc confirme wu leen à ça mais yemul foofu euh, xam nga dañu contrôler wax nga ko léegi les marchandises les personnes et les biens dañu jël également encore beneen protocole de contrôle boo xam ne dañu ñu agent yi ah euh, jàngoro bi egsi na léegi nii ngeen di taxawee d'habitude seen contrôle nii ngeen ko daan defee mais feebar bu amee da ngay réorganiser wu nga xoolaat ni nga doon defee contrôle pour que yow nga protéger wu mais également nga protéger usager du service bi mm-hmm. maanaam euh, protection bi du pour agent des douanes yi kese parce que boo protéger agent yi te protéger usager yi aussi mu ngi mel ne yow li ngay xeex amagoo ko donc ce qui fekke que dañu jël en protocole de contrôle boo xam ne dañu ne agent yi désormais ni ngeen di defee seeni contrôle assurer la sécurité te du ngeen euh, nekk un vecteur parce que jàngoro bi euh, demul nit ñi ñoo koy yóbbu donc de telle sorte que dañu nekk euh, à l'avant-garde de la lutte mais dañu nekk un vecteur ci maladie bi donc protocole boobu jël nañ ko pour woon agent yi une autre façon de fair les contrôles de telle sorte qu'il ne soit pas un vecteur à la maladie mais yemul foofu également dans nos missions parce que douane comme ni ñu ko waxee léegi gars yi bon dañu ne boo ne douanier rek ñu ne xeex fraude la ay hmm. perception des recettes genre euh, liquidation des recettes mais ci mission bi ma wax léegi maanaam concours bi ñuy jox aux autres administrations euh, le volet santé def ci am solo parce que gis ngeen temps yi passé le nombre de saisies de faux médicament yi douane def 2020 hmm. euh, bi ne xam naa dinañ ci ñëwaat hmm. euh, def nañ ci ay saisies yu énorme mais ba pare même par rapport à l'introduction même des médicaments dans sur le territoire national douane def ci am wàll donc foofu xam naa dinañ ci ñëwaat. yéen a ngi xippi xool parce que xam nga am na garab boo xam ne wax nañ ni fi mu toll nii ñu ngi koy fajee nit ñi. te xam nga saay-saay yi ñoom seen xel dafa ñaw. bu ñu déggee ni garab boobu la ñu soxla te waxoon nañu fii nii nit ñi ñu ngi koy dem di ko wutali seen bopp te loolu warul nañu xaar waa kër docteur mais xam nga ñiy saalit dañoo bari. garab boobu bu waaye déggee ni Sénégal soxla nañ ko mu ne xaaral ma lijjanti ji bu baaxee bu baaxul sama yoon nekk naa ko lijjanti dugal ko ci wàll boobu est-ce que am na disposition spéciale yoo xam ne ni kat taxaw ngeen ci pour wàll bi. Euh, ci contexte bi. Euh, foofu noonu euh, il faut ma préciser benn affaire aussi c'est-à-dire même bu dul ci contexte bii nii tey amul kenn ku mën a dugal un médicament au Sénégal te jaaraloo ko au niveau de la douane. te balaa douane di permettre mu dugg dafa am benn document boo xam ne direction de la santé moo koy valider bu ko douane gisul médicament bi mënul dugg. maintenant par rapport ak euh, ñi ngay wax yoon bi moo parce que dafa am ñoo xam ne comme li nga wax léegi ah. effectivement mën nañ profiter de la situation. ne xaaral mooy li ma wax léegi que ñu dugal des choses yoo xam ne normalement warutoon jaar. Mhm. foofu laa la doon ne léegi actuellement douane def ci gën a taxaw dafa gën a qui sont au niveau des frontières les éléments de la surveillance parce que même les dispositions yi ñu jël pour par exemple dire euh, réduire les effectifs dans les bureaux de dédouanement euh, ñu nekk par exemple ci frontières yi di def surveillance bokkuñ ci parce que dañu ne période bi dañu war a gën a vigilant pour que kenn du mën a profiter ci situation bi di indi loo xam ne warul dugg Sénégal jërëjëf dinaa ñëwaat léegi ma defaat tour bu gaaw parce que foog ñu def ci yeneen i ñaar balaa ñoo dajal mm-hmm. ah dama leen doon dañu doon barkeelu rek ci yëgal mission yi ko leen ko du Fall est-ce que jafe woon na ci mission yi gendarmerie ci vraiment wattu kaaraange gi parce que ci mbir mi sollicité nañ leen fu bari ci yi nga xam ne nii aussi ci contexte la Sénégal ñu ne bon julli nañu ko wàññi xew yi nañu ko wàññi am na ñoo xam ne xew yi ba léegi ñu ngi ci bëgg xam nga pour récupérer ndawtal moom yaa ma gën a xam am na ñoo xam ne du ñu bëgg a bàyyi xew yi ak yooyu est-ce que mission bi jafe na kame pour wattu ko bu baax ba mu mat ci li nga xam ne nii moo ci seen wàll yéen. waa xam nga dama la wax ne ñun euh, am na benn mission bu ñuy wax police administrative bu ñuy def saa su nekk. mais si biir police administrative boobu dañuy dem di déplacé wu di dem gis gox goxaat benn élément bu gën a am solo mooy la sensibilisation parce que ñun certes dinañ def la répression mais dinañ dem di gis euh, les leaders d'opinion chef de village yi dem di gis aussi population yi di waxtaan ak ñoom d'ailleurs euh, gendarmerie actuellement mi ngi initier benn euh, police de proximité si biir police de proximité dañ siy dem def euh, ay brigade de proximité si ay gox gotaas ba te de telle sorte que nit yi saa yu ñu amee ay soxla bu wàllu si wàllu sécurité rek dootuñu soxla di dem di déplacé wu di def ay kilomètres kilomètres pratiquement population yi dinañ am vraiment ay gendarmes yoo xam ne vraiment daf leen di jege donc ñun dañuy sensibiliser population yi d'abord di wax ak ñoom ne leen ah am na ay mesures yu bees yu nguur bi jël bu pour tere dem beeg dikk bi te boobu. ñoom euh, vraiment am na ñu ñu déggal te aussi ñun am nañ non seulement ay unité euh, satique maanaam ay nit yoo xam ne euh, dañuy nekk ci terrain bi di di di di tenir ay points yoo xam ne ku fa jaaree ñu kii la mais am na aussi ay unité mobile ñoo xam ne dañuy dem par exemple am na les escadrons de surveillance et d'inter d'intervention yoo xam ne euh, euh, ñi ngi ci frontière bi donc ñoom pratiquement balaa feebar bi di di di déclenché wu ñoom doon nañ euh, sillonné toute la frange frontalière donc foofu donc pratiquement amul benn différence par rapport ak suñu mission actuellement am na aussi donc yeneen xeetu gendarme yoo xam ne suñu ñëwee dinañ mën a agir de telle sorte que vraiment euh, nit yi dinañ mën a sensibiliser wu euh, bu baax a baax si si si kii bi comment dire si maladie bi léegi am na euh, beneen vole mooy vole enquête am volet aussi donc police judiciaire mm-hmm. su fekkee ne dafa dañoo jàpp ay nit yoo xam ne respecté wuñ couvre-feu bi mais dañ leen dañ leen di jébbal yoon mm-hmm. lu ñu mën a saytu mooy depuis euh, crise bi bu déclenché wu ah depuis ñu déclenché couvre-feu mun nañ wax ne pratiquement am na euh, quatre mille personnes yu ñu interpellé yoo xam ne respecté wuñ euh, couvre-feu bi donc ça veut dire que gendarmerie chômewul oh, hmm. am na aussi ay véhicules ci toll si par exemple mille huit cent véhicules yu nu immobilisé ak ay moto cinq cent dix-sept ak Euh, permis de conduire yu ñu saisir c'est vrai que day def benn supplément de travail mhm. waaye supplément de travail boobu du perturber ñun suñu liggéey parce que simplement ñun en temps normal dañuy yónni si ndaw yi sur le terrain ñu def ay prévention def euh, sensibilisation mais su fekkee ne dañoo war a jël ay mesures coercitives dañ ko def te am nañ aussi ay réserve yoo xam ne euh, commandement bi daf ko prévoir comme ça suñu demee ba mbir bi xaw ñu ëpp loxo dañuy jël les éléments là injecté la leen pour ñu dem renforcer éléments yu yu commencé nekk sur le terrain di agir donc si gàttal daal ñun fu mu nekk nii amuñ benn difficulté pour gérer situation parce que simplement si suñu liggéey la bokk waaye aussi euh, dañuy organiser wu de telle sorte que euh, vraiment dinañ mun a liggéey mu mu mën lu ma si mënoon dolli mooy. métti mm-hmm. euh, kii bi maladie bi. c'est une maladie multidimensionnelle donc am na ay facettes yu bëri am na facette sanitaire mm-hmm. am na facette économique am na facette aussi sociale bien de telle sorte que am na benn post de commandement euh, mixte bu ministre de l'intérieur sanc mi ngi nekk au ministère de l'intérieur boo xam ne toutes les forces de sécurité ñu ngi foofu mm-hmm. donc de telle sorte que coordination bi dina gën a yomb et puis dañuy mutualiser suñu moyen chaque force de sécurité du du ñëw rek ne moom day dem liggéey boppam donc fu suñu capacité yëpp la jël boole de telle sorte que su fekkee ne am na benn force de sécurité bu soxla na benn capacité particulière mais boobaa si biir euh, poste de commandement bi dañuy euh, diisoo rek ba ku nekk mun jàppal moomam. dama dégg sànq nga ne gendarmerie ñu ngi def police de proximité ma ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi dugg ci terrain wu commissaire central mais xam naa waxin la rek ci mission yi nga xamante ni mission de police xam nga ñëw yooyu ñëpp ñoo ko bokkee mais xam nga réew mi daf di réewu masla daf fi bari ci loo xam ne nii xëy na wax nga ko sax pédagogie baax na bu ay mission amee li gën a jaxal sa tey xel yi nee na ñu ñu ngi teree dem beeg dikk bi waaye am na am na taxi yu ñu tuddee allo xawma euh, genre yooyu nit ñi ne ñu ngi jaabante di dem ko ñëw est-ce que situation yu mel nii dañuy xaw a dawal maslaha wala dañuy xam ni kat déet dem bi moom mënul nekk tere nañu dem ak dikk diggante région nañu ko teg rek ci aar askan wi te masla bañ a doon dama foog ni sax fi mu toll nii gouverneur ñoo gën a sonn ku xam ni xam nga benn gouverneur sax mu ne la lijjantil ma pour ma mën a dem région bi façon lay bu ne defe naa ni ñu ngi koy am ci situation yu mel ni dañuy teg masla de côté. déedéet masla warul am dem la bëggoon am na leen lum si bëggoon yokk xam nga nit yi da leen aaye ñu jël euh, euh, axe yi. Mhm. di si circuler mais am na actuellement yenn piste yi yi gars yi di utiliser mais ñun gendarmerie am nañ benn moyen redoutable la section aérienne de la gendarmerie nationale. Mmh. chaque jour moom day nekk si jaww bi te ñu mën a renseigner te chaque fois. di ngeen gis ñuy jaar ci ay ñuy jaar si mboy yi te mhm. dinañ dañuy dem di leen intercepter loolu moo tax lim bu bu ñu jàpp si oto yi bëri mais oto yi bëri ñu si bëri si piste yi la ñuy jaar. pour mun a teggi tali yu mag yi parce que xam nañ ne tali yu mag yi suñ si euh, awee rek am na ay policiers wala am na ay gendarmes yu leen di xaar si ay carrefour mais nag euh, man dama ne comme nu ko suma naataango bi waxee sànq maladie bi dafa am ñaar yoo xam ne ñaari facteurs yoo xam ne ñooy tax mu gën a law mooy nit yi di booloo. Mm-hmm. wala dem diggante dem région benn région dem. dem feneen loolu nag. pour ñu éviter que mooy rek ñu respecter euh, état d'urgence bi état d'urgence bi day tax ñun ñu tere waa wàññi euh, déplacement yi diggante dëkk ak dëkk day tax aussi ñun rassemblement yeeg défilé yeeg cortège yooyu yëpp duñ ko def te loolu suñ ko defee nag su fekkee ne ñëpp topp nañ ko yaakaar naa ne euh, dinañ mën nañ si mucc te maladie bi fu mu nekk nii Euh, du mun a law euh, dem ba atteindre yenn proportion yi mhm. parce que simplement soo xoolee même statistique ministre de la santé yi jusqu'à présent kon kon contamination communautaire bi daanaka dafa dafa ndaw tuuti mhm. waaye nag euh, am na ñaari fan yu xaw na xaw na jéggi mhm. dayo donc vraiment ñun danger bi Euh, foofu la lay ñëwee parce que importé yeeg wala contact yooyu pratiquement ñun euh, gars yi ah, ñu xam-xam seen xam-xam màcc si wàllu docteur. Mm-hmm. ñoo ñu ngi koy mm-hmm. maîtriser. Mm-hmm. mais communauté terre pour ñu bañ a tax mu gën a law il faut ñu interdire déplacement yi interdire aussi les réunions les défilés ak en tout cas situation fav circonstances yi favoriser nit yi dajaloo ko. Colonel Amakodou Fall adjoint ressources humaines état-major. au commandement de la gendarmerie bu ma wëlbati ko ci commissaire Serigne Amadou Diop. dafa am ku fi mës toog mu ne moom ñi mu gën a yërëm mooy ñiy wattu ñi ñuy wattulu seen wér-gi-yaram ndax xëy na euh, ci image yu ñu gis nit ñi di dajaloo nga ne alkaati bi policier bi wattul ñi fexeel bu ñu dajaloo te yow yaa ngi exposé wu cest à est-ce que euh, ci seen mission au quotidien risque yooyu yu ngeen di bàyyi xel la di ko évaluer di ko doxee ak di ci ànd ak diggewu kilifa yi pour xam ni seen mission ngeen nekk waaye aussi wattu sa kaaraange ak sa wér gu bokk na ci. parce que ay citoyen ngeen ay ay sénégalais ngeen war ngeen wattu aussi seen bopp. Mm-hmm. est-ce que yokkul ci difficulté bi loolu. waaw euh, euh, Cissé en fait jafe na jafewul parce que lu tax du jafe euh, ñëpp xam nañu xeex bi si lan la jëm maanaam pour xeex benn jàngoro bu lëmbee àdduna bi. ñu ñi nga xam ne ñooy alkaati wala force de défense et de sécurité taxawaay bi ñu ci war a am munul a ñàkk il faut mu am il faut ñu taxaw mais di wattuwaale suñ kaaraange parce que docteurs yi ñoo nañ taxaw gis ñu ne leen nii ngeen di def pour mën a protéger seen bopp soo xoolee su ma jëlee exemple police si biir mission bi dañu doter policiers yi des EPI équipement de protection individuelle ba pare jot leen a sensibiliser si Euh, jàngoro gi nu mu demee te ñëpp xam nañ ko dafa laaj cet soo xoolee si poste de police wala poste de gendarmerie yu bëri même soo fay dugg il faut nga raxas say loxo. ñu jox leen tamit de alcogel loolu yëpp aussi pour ñu mun a wattu seen kaaraange des fois dama koy wax sama élément yi su ñuy def regroupement sensibilisation avant ñu dem sur le terrain mais leen benn way takk def su feebaree si biir service bi rek. Mhm. dañ nar a jël ñëpp mettre leen en quarantaine te tey dañu soxla takk der yëpp ñu taxaw sur le terrain. soo xoolee même organisation bi ñu def bi euh, kilifa réew mi décrété état d'urgence bi am na service yu bëri yoo xam ne sax dañ ko arrêté naan les services non essentiels. ñu jël takk der yëpp ne leen nag aywa dem leen sur le terrain. pour mm-hmm. ngeen mën a wattu askan bi. te moytu leen sax di demander ay congé yooyu dañ leen a soxla lépp dañ ko sursoir parce que mbir mee ka laaj. Mm-hmm. mbir mee ka laaj donc côté boobu kilifa yi moom bàyyi na si xel bu baax bàyyi na si xel bu baax maanaam wattu Euh, maanaam euh, élément yi sur le terrain ngir xeex bi parce que jàngoro bi ni muy lawee dafa gaaw ni muy lawee dafa gaaw donc loolu moom nit ñi taxaw nañ ci te à chaque fois ay rappel lay doon ay sensibilisation lay doon pour au moins si biir service yi même seen biir kër parce que kër ga nga nekk jàngoro bi su fa amee alkaati boobu mun na ñëw yóbbu ko si biir service yi te su boobaa day law hmm. donc loolu moom am na solo beneen aspect bi ma bëggoon wax defe naa ni sama naataango bi wax na ko léegi mission bi jafewul sensibilisation bi daf si am solo police de proximité bi mu wax léegi ñëpp koy def képp kuy policier gendarme douane dafa am solo proximité bi du doon dara lu dul ñu jege askan bi jege leen xam seen bëgg-bëgg xam seen problème sécurité ñu teel si anticiper soo anticiper si problème moom dafa mel ne réglé ko à quatre vingt pour cent ma jox la exemple ndaw rek soo demee Saalum Kaolack maa ngi jaajëfal euh, délégué de quartier yi suñ liggéey su yombee tey pour tas daje ak rassemblement yeeg ngéntee xew yi boo fekk na avant lii dañ toogoon ak ñoom waxtaan ak ñoom si mbirum sécurité publique ñoom ñu taxaw si jàppale ñu si lépp loo xam ne problème de sécurité la mun na yàqu gox ba wala mun na euh, am feneen fu mu féete ñoom dañuy teel a ñëw jox ñu information boobu ñu teel ko saytu moo tax bi euh, ministre de l' intérieur jëlee arrêté ne lépp loo xam ne rassemblement la nañ ko tere nañ ko bàyyi lépp loo xam ni euh, euh, mooy rassemblement yi ñuy wax rek wax tudd nga ko léegi muy ngénte yi. Mm-hmm. muy euh, xew yi tout ça demee noonu nañ ko bàyyi. dina jafe nag pour alkaati bu ne taxaw si benn bopp koñ. Mm-hmm. mais su fekkee koñ bu nekk am na ku fa nekk doon civil jàppee sa bopp alkaati xam ne lii ñu teree pour wattu askan bi la pour aar nit ñi la yow di nga taxaw doo jouer rôle alkaati mais di nga jox information police wala gendarmerie ñu mën a ñoo teew. moo tax liggéey bi sur ce côté nag jafewul parce que ñi ngi ciy liggéey maanaam muy population bi am nañ ci benn conscience boo xam ne responsable pour mun a jàppale takk der yi moo tax côté boobu jafewul soo xoolee côté transport bi parce que déplacement yi tamit dañ ko teree. Mmh. il faut nga am une autorisation exceptionnelle dina jafe nag parce que ki nga xam ne si oto bi la doon yaakaaree dépense nga jékki-jékki naka taxawal su santee njaay il faut mu jéem a jaay si jaar si àll bi mais tamit transporteurs yi tamit taxaw nañ si ñi nga xam ne mooy les responsables transporteurs hmm. taxaw nañ si pour jàppale si taxadeer yi donc loolu aussi euh, ñi ngi taxaw si tali di liggéey ak euh, les autres forces muy gendarmerie douane maanaam mutualisation de femmes parce que mu ñu taxaw fenn ak armée aussi taxaw nañ si pour au moins ñi nga xam ne dañuy jéem a jalgati ñu mun leen teg si yoon te texte yoon bi tamit texte yaa ngi nii parce que ñun ñoo nag sur le terrain mais de l'autre côté le parquet là procureur lépp loo ko yóbbul koo xam ne dafa jalgati yoon daan yi moom métti na métti goo xam ni balaa nga xëy dafa di ko di nga ko xalaat mm-hmm. donc liggéey bi jafe na jafewul. commissaire ci xeex bi wër gu yaram moo jiitu moo mujj mm-hmm. est-ce que gis ngeen seen bopp ci fi nga xam ne nii fa la ñuy waxtaanee décision yi est-ce que baax na ñu bool am na cadre boo xam ne. fale ñuy waxtaanee wàllu wér-gu-yaram bi mais xam ni wàllu sécurité def ci bokk gis nga pays yu bëri sax ay conseil de défence la ñuy tenir fii c'est vrai ñu ngi tenir ay conseil de sécurité conseil présidentiel est-ce que gis ngeen seen bopp ci impliqué leen en amont comme en aval ci stratégie bi ci décision yi bu ma nee yéen mooy seen kilifa yi par exemple ministre de l'intérieur war ngeen xelal ko loo xam ne ni gis ngeen ni finalement dellusiwaat na ci li décision politique yi di jël pour mu gën a yombal tam seen liggéey. loolu mënul ñàkk soo xoolee si organisation bi rek par rapport ak euh, ni ñuy xëy xëy jàngoro bi ñu naan Covid 19 au niveau national am na un comité national de gestion soo demee dans les régions aussi dafa am régional. Mm-hmm. te dans ce comité takk der yaa ngi ci médecins yaa ngi ci services sociaux yi ñu ngi ci. donc en fait nous sommes au cœur du dispositif parce que tey pour mun a yombal liggéey bi su ñu jëlee les spécialistes les médecins ñu ne pour ñu mun a xeex jàngoro bi il faut que nit ñu toog. Mm-hmm. il faut que nit ñu moytu ndaje bi. médecins yi nekk si hôpitaux yi di faj mënuñu génn. Mhm. di tas nit ñi il faut takk der ñoo def ko. Mhm. suñu nee bu kenn génn Dakar wala bu kenn génn euh, région pour dem beneen région du médecin bay ñëw taxaw parce que médecin maa ngi faj ay malade am. il faut que mhm. takk der ñëw jàppale leen si loolu pour ñoom ñu mën a liggéey ak une certaine sérénité donc c'est pour vous dire que.